ñetteelu étape ci doxum nemmeeku jëm ci wàllu sukkali soxal soxna yi jëwriñ ji ñu dénk nag jigéen ñi njaboot gi ak ndaw yi gisante na ak mbootaay jigéen bu département bu Ranérou moom nday Saly Diop nag jébbal na leen ñeent fukki million ci suñuy koppar jëm ci wàllu financement. département de Ranérou dañ fay ñëw indi leen ay financement pour jàppale leen seen taxawaay parce ay jàmbaar ngeen da nangoo liggéey nangoo sonn defe bu noo fu ne ma su fekk ñu ngi liggéey ñu ngi sàmm ñu ngi bay ñu ngi jaay ñu ngi transformé loolu nag ñu bëgg nag mu dëgër mu bëgg nag mu jëm kanam moo tax indi ci suñu wax na jigéen ñi financement yi ñu financement yoo xam ne daan def ko jox ngeen tey lekk loolu dafa jeex ci Sénégal dañoo bëgg jigéen ñi nekk ay femmes yoo xam ne fu góor taxaw jigéen dina taxaw ci wet lu góor man jigéen mën ko tey jii son excellence président Macky Sall ci vision Sénégal ne la parité nañ ko dëgëral

wallukaay yi nag di bari lool fii ci Ferlo ndax sa liggéey yow jëwriñ ji ni seeni moroom jigéen waa département bu Ferlo xam nañu ne yëg nañu leen bu baax a baax soxal financement yi nga xam ne génn nañu ko ngir gën leen a jàppale ci seen liggéey yi. président defal na jigéen ñi lu bëri forage yi bëri nañu parce forage boo ko defee ci gox rek wàññi nga coono jigéen. indi na ay moulin en mille wàññi na coono jigéen président daal gàcce ngaalaama jigéen ñi am nañu ay formation yu bëri yoo xamante ni dangay toog sa kër nga mun koo def nga liggéey te doo am benn jafe-jafe nga jox sa njaboot parce que ku xam jigéen bu génnee rek day wuti dara pour indi ji mooy jigéenu département de Ranérou jàmbaar yi nga gis fii. président lii la bëgg ndax euh, réew mi kat yemul Dakar rek yemul Thiès rek. ñun ñii aussi ci réew mi lañ bokk mbaam daa gàtt waaye ci jur gi la bokk kon madame le ministre gàcce ngalaama bi nga amee paspas ak jom ak fulla ak njàmbarte ndax njàmbarte mooy dugg ci àll bi fit mooy dem ci àll bi ndax amul yoon yu baax te it na lool waaye nag kom suñu président de la république def ko xam def ko bëgg aussi nit soo ko bëggee dañ koy toppandoo ci li muy def te gis nañ loolu ci madame le ministre Ndeye Saly Diop Dieng. laata doxub nemmeeku bile nag jëwriñ ji amaloon na ab doxub saytu ci tool bi nga xam ne nag jigéenu commune bu Wélingara Ferlo bay nañu ko ngir yëngu rekk ci wàllu maraîchage ci gox bi file ci département bu Ranérou ci région bu Matam. mooy dañu xaaral di gis ay nag ak ay élevage parce que loolu loolu la ñu lañ tàmm ci yeen pël yi waaye tey wan nga ne mu ngeen def mu ngeen def leneen lu bokk la loolu parce que il faut diversifier en fait secteur yi nga xam ne mën nañ ci mën nañ ci liggéey pour apporter suñu contribution ci économie réew mi tey ji jigéen ñi je pense que li ngeen def tey xëy na tàmm lañ ko gis mais lu baax la d'abord dina dina jàppale seen dundin parce que booy bay ci li nga bay di nga ci lekk di ngeen dina dina lutter contre euh, vraiment la malnutrition des enfants parce que jigéen bu ñu amee dañu jox seen ay doom rek loolu am solo déjà ba paré nak ngeen am ci lo xam da ngeen ci mëna jaay ëlëgëm ci mu indil ay koom ngeen mëna renforcer bien être kon ñing ko sant bu baax diko féliciter di leen wax tam jigéen ni aussi li leen defal tamit ngeen japp ci liggéey su baax xamna naa kenn dina wo ci liggéey parce que tam ngeen ko li ngeen liggéey pour yeen la parce que bu ngeen ci amé dara di ngeen ci mëna jàppale sen ay njaboot jàppale sen ay jëkkat té loolu ñu sentu ci yéen gannaaw Vélingara Ferlo nak mom jëwriñ jii di ndey sali job bien dem na ba village bi ñu duppé Adja tollu rek ci ñaar fukk ak juróomi kilomètre bu commune bu Vélingara

ànd ak lëkkaloo ko ak TRID indi fa ay sunu condition ay sunu matériel yoo xam ne dafay améliorer condition de vie indi fa ay table banc indi fa ay euh, plaque solaire tey defe naa ne tey bu génnee tey village boobu dina leer te defe naa ne Sénégal village boobu amee ba léegi musul am courant loolu avancé bu rëy la son excellence président Macky Sall moo ko jëf yaakaar naa waa Adja tey dinañ xam seen fii changé na parce que ne ci lëndëm ñu indi la leer di xam ne am na lu yokkute lu baree bari ci yow kon président gàcce ngalaama son excellence président Macky Sall. yeneen i jumtukaay it soxal wàllu bay ak it càmm waaye gëna gunge soxna yi rekk ci seen yëngu-yëngu moom Ndeye Saly Diop Dieng nag jébbal na ko jigéen yi yeewoo ci département bu Ranérou.